Aïcha ba léegi moom ngeen di gis noonu muy saafante ki nga xamante ni moo di papam woy juróom bu góor mu ngi noonu toog mu nekk complicité boo xam ne dañ koy faral di gis saa su nekk rek macha allah. en tout gërëm na la de. gërëm na la de. tey boo toogee sa papa gërëm la déetawaay nga ñëw toog nga gis ko tey lan ngay yëg. kontaan bu baax xaw sa la laa war a wax parce que woote nit yi ñëw yombul quoi ba pare sa famille xam nga tey tey lan nga yëg bon dama kontaan rek parce que su ma gëstoo gis kii rek bu yàgg may leen ko mouchoir des fois dafay métti nit ñi duñu xam mhm. lan ngay dund mais am nga ay waajur yu la comme xon mhm. yu nekk ak yow mhm. am nga ay nit yu la yàlla booleel te ñu ma yàlla booleel nii dama sant yàlla bu baax ci ñoom parce que jooyu ma dara quoi man nag ci liggéey lañ ma yar liggéey laa xam ci laa màgg ba ñi ma di rayante pour am mu sàngee sama diine ak sama ngor mooy li ma sama papa jàngal parce que waajur bu nekk waajur nga mais nag kenn moomul kenn tey jii suba tey mu fi wàcc kaamil ba tey mën na bañ sama jot mu dem mais man xam naa ni bu ma ko teewoon ba suba fii lay toog parce que moom mooy sama xarit xarit la mhm. mais ku ma ku ma bëgg la aussi sama papa daf ma bëgg ba xam ni daf maa bëgg te jur na ay doom nag mhm. mais man yàlla moo ma boole ak moom mhm. te mu nag mu ko aussi mu nangu ne yàlla moo ma boole ak moom sama yaay moom dañ koy ñaanal rek parce que yaay bu mel ni moom yombul yaay bu uuf ñëpp la noo xam kum jur ak kum jur mais dafa am loo xamante ne bii bu amee damay sant yàlla bu baax parce que nit ñi man moomu moomuma leen moomuma nit ñi ba ku nekk war a mën a ñëw yéen ñi taxaw kañ ngeen fi nekkoon peut-être su ma meloon beneen nit bàyyi naa bu yàgg daw naa bu yàgg mais man duma nit kuy daw parce que doomi gaynde laa duma daw ku xam bàyyi daam moo jur yaa awa buñ leen kii dafa ragal sa war nga wax ni du dëkk mhm. parce que nekkul ci man yaruma ci loolu aussi mhm. du du ma yaafuus te du def lu ma gëmu mhm. lu may def te gëwuma ko yàlla bu ma ko àggali waaye nag su ma santee gërëm lépp kenn rek laa koy delloo mu siriw ba seen parce que mooy sama yaakaar tey ak ëllëg ndax nit bu amee jom dafa am lu tax muy am jom dafa am ci ku muy xool te man samay waajur rek doon nañ ma doon nañ ma seetu quoi mhm. te man sëriñ bi seen laay mooy sama lépp mhm. mooy sama kanam mooy sama ginnaaw mhm. mais nag peut-être nit yi les gens des fois duñu comprendre vraie base nit bi lan man lu ma mënti ñàkk aussi am naa samay waajur lu ma mënti ñàkk am naa sama famille fii kenn raxuma je peux dire ñëpp sama famille lañu ñii man ak ñoom ñooy nekk H24 man dama voyage démb laa ñëw une heure du matin enchaîné jusque rek ak weeru koor bi lépp ñi taxaw ñoom ñoo ko def lépp ñoom ñoo ko le mu jigi dama leen ne dañ ci leen di ñu ñu def après mu jeex quoi tellement ko ñoom ñoo sonn ñoom ñooy def lépp man du ma du ma des fois sax du ma bëgg sax def yenn yi parce que du ma leen xalaatee rek lu bari duma ko bëgg def sama adduna mm-hmm. mais jom demee ak fulla ak fayda parce que dama koy wax chaque jour ya fous du avancer fi Sénégal ragal du fi dem ku bëgg dara aussi bo leen di déglu do dem parce que képp ku la naan bu doon man la wallahi bu doon mom mu def triple bi clara bu doon man la peut-être dafa amul lu mu fu muy jaar bu dem def lool prox ndol bi pour dem def ko mais nak comme chaque jour rek sama papa day feral di wax si moom laay liyee baat boobu moo yàlla mu bind guddi ak bëccëg ku léegi woon naxaat guddi ak bëccëg kuy naxaate ak ku dul naxee doo def preuve def nekk ci ay waxu kase taxul nit def dara te lii dama ne c'est une c'est une début au fait parce que ku xam yaaw xam ko ci liggéey tey ki taxaw ni maanaam moom ñoo bokk ndey ak baay mooy suñu taaw kër mais ñun ñëpp ci liggéey lañu ci liggéey la ñu nekk quoi parce que boo nekkee ci réew ñu lay tudd mhm. doyul mais da ngay liggéey lu jariñ réew mi mhm. te ñun si loolu lañu nekk parce que ay porteur de voix lañ dañuy wax nit yi duñu déglu dañuy wax nit yi duñu bàyyi xel mhm. kon ku ñuy bàyyi xel da ngay teg da ngay teg lu leer parce que ñi taxaw sama ginnaaw man boo waxul ñoom mën nañu wax ku ma ciy àndal dama naa leen jigéen day liggéey jigéen warul xaar góor parce que góor boo fi xaar mu yàpp la nit da ngay liggéey loo am nga xam ne li yow yaa ko amal sa bopp nga def sa bopp ak say waajur ba loo ci fekk yow nga jël mais boo toogee di xaar nekk yaa fuus lu ñëw nga foog ne yow yaa ko yeyoo mm-hmm. ah néew ma doo def de mais di nga def loo xamante ne du neex suñu borom te bu ëllëgee tamit di nga ko layoo parce que nu mu mënti doon ak fu mu mënti doon aussi ci àdduna bi mm-hmm. loo mënti def yow ak suñu borom la yàlla moom mi ngi gis lépp mm-hmm. et ñi ne ci yoon bu baax xam nañu ñu ne ci yoon bu safaan xam nañu man ñi may àndal ñii ñëm ñëpp samay doom laa leen di wax parce que loolu moo nekk si man en loolu laa leen di xoolee parce que ku ku xam doom ak yaay nu mu mel di nga war a xam diggante nit ak nit nu muy mel du coup noonu laa jàppee ak ñoom mun ma lim seen tur Fatima dama dem voyage mat na 15 jours ma fi mais lépp moom mooy ñëw di ko gérer bu 8 heures la yeewu lépp matin soir ñoom day bind man ma xëy gis man dama di ma leen waaye ma leen ngay ñëw ñu ne ma 8 fi ñëw ma ne la mooy loolu mu ñëw fekk leen laax ak lépp ñoom ñoo dem togg defar lépp ñoo teg ko comprendre nga kon loolu complicité moo ko waral yàlla boole ñu aussi muy sincère mu yàgg. te nekkul dara loo xamante daf ko rax mhm. ñi taxaw ñëpp ñoom ay salon ki salon am la yor ñu yor seen i boutique ko tëj ñëw parce que man maa tax ñu def ko soo ba tey mhm. kon nit ñooñu awma seen fay yàlla boo na ma ak ay nit yoo xam ne mënuma leen a fay mhm. kon ñii dama leen di ñaanal ku ma bëgg na ma ñaanal yàlla bàyyi ma ak ñi ñooy sama njaboot ñooy sama lépp waaw xam nga tey moo nekk loo xamante ne du xew yi boo demoon cent ans boo ñëwaatee showbiz fu mu nekk lay nekk moom du fa bouger sa bouge pa te ñun ay nit lañ yoo xamante ne ñu ngi dox dañuy nekk di ay maire de famille war nekk ci leneen kon war nañoo jéem a teel a euh, cadre suñu life am fenn fu ñu koy teg nga xamante ne lii boo ci jugee mu leer na ne lii yow yaay dem bàyyi ko fi parce que moom du dem di fi bàyyi xam nga nit lu muy dagg lu ñu xamul mais xamee kenn mënu koo dindi te nit looy daw day fekk la nga la doon daw baaxul ñun ñëpp ay ay être humain lañ et que am na loo xam ne dañ koy sàmm te dañuy continuer di ko sàmm ba keraa ñuy di ba déwén ginnaaw déwén frère lay nekk sama lépp lay nekk parce que sama xarit la nit ku baax la nit ku am yërmande ci nit la et que di wax ak sama papa di wax ak sama frère chaque jour kon am na loo xamante ne bi nit ñi du ñu comprendre nag base bi mais moom xam na yaa a xam na te sama xarit la sama lépp la parce que nit ku baax la nit ku xam nitam la et que du tey quoi 2017 à 2022 xoolal 2023 du ay ñetti fan kon kooku yàgg na xam na ma xam naa ko sama frère la dara du ko dindi du am benn virgule bu ñaaw bi dox sama diggante ak moom parce que jiwante wuñu loolu quoi mais que ni mën naa ne ñii ñuy dox nii yëpp bu ñu jógee fii ñoom Sidi bu paree woon nii dañuy dem bàyyi ji ko kon loolu famille la lu mënul dañ ñii di toox ba xam yow Sidi famille lañ bokk ñii ni nekk ay doom foofu laa ne xamee woon mais loolu daggul te lañ ko ne gën a nekk ak man te suba la ñuy gën a dem ànd ak Sidi kon lu dañ la nit ci dañuy dañuy du ñu xàmmee nag des fois li ci kaw ak li ci suuf dañuy day duñ ko duñ ko distinguer quoi les deux mais lepp ben la et que ku nek da ngay paré nga nek ce live quoi. borom yof ñawal borom yof yaa yaangi yaangi dik ñawal ya awa yaangi dik ya awa yaangi dik doom ju dimbali ndayam doom ju teral ndayam doom ju sagal ndayam doom ju dimbali ndayam doom ju teral ndayam doom ju teral ndayam doom ju dimbali ndayam yaa awa neexu leenam nee leen yaa awa nee leen yaa awa nee leen yaa awa nee leen yaa awa nee leen yaa awa nee leen yaa awa

An hour.